Euh, tey jii li ñu dajale ci Kayar moo di juróom fukk ak juróomi moteur yoo xam ni yii dañ ko fi joxe tey mu ñëw yokk ci juróomi téeméer ak ñaar moteur yi nga xam ni distribué dañ ko daa ci Kayar programme subvention des moteurs hors di bi ko président de la léegi Kayar jot na ci genn wàllu milliard ci juróomi milliard Kayar jot na genn wàlli milliard kon wax fa dëgg yàlla Kayar desul gannaaw loolu li mu wane mooy disponible le président de la République am na waaye tamit farlu bu population Kayar farlu pour li nga xam ne li possibilité ak opportunité la ñoo ñu dem saisir li mu wane tamit ni kon. pêche bi active na active na trop fii ba nga xam ne kenn waru ko négliger moo tax ñi fi jël kàddu ñëpp dégg naa li ñu wax ndey ji réew bi dégg naa li mu wax président CLPA bi dégg naa li mu wax femme transformatrice tamit dégg naa li ñu wax autorité locale tamit dégg naa li ñu wax comme te dañ daje nag ci bayal bu toll nii te li ñu war a wax ñu wax ko tënk mool ko moo tax ma leen bu dimanche bu solo yàlla na dellu si Kayar yendoog ñoom 10 heures ba fu réunion bi jeexee ba nga xam ne may dem dinaa mën a jël doléance su Kayar yëpp dajale ko ñu def ci waxtaan boo xam ne ci teey la ci teeyu bakkan ci jàmm ak ci salaam boo xam ne bi naa mën a móol li may móol jébal ko monsieur le premier ministre mu jébal ko le président de la République nga xam ne war nañu indi ay remèdes par rapport aux préoccupations des populations de Kayar je vous remercie visiter les populations de Kayar, surtout les acteurs de la Parce que nous devons distribuer aujourd'hui 55 moteurs hors bord de pirogue qui viennent la liste des 502 moteurs qui ont été distribués la zone de Kayar et environ, ce qui représente une subvention égale à un demi-milliard de francs CFA. un programme de 5, de 5 milliards, si Kaya reçoit le dixième, alors que nous au moins 46 départements, je pense qu'une part belle a été réservée à Kaya. Euh, J'ai écouté religieusement l'ensemble e les doléances euh, du monde de la pêche, je les ai promis de revenir le dimanche prochain, de passer toute la journée avec les acteurs de la pêche, avec les femmes transformatrices, avec les autorités euh, locales, pour avoir la quintessence même des problèmes de la pêche au niveau de Kaya, leurs attentes les plus légitimes et essayer de faire un condensé de l'ensemble de ces déshydratants et les présenter à monsieur le Premier ministre et au président de la République pour que des solutions idoines en adéquation avec les attentes les plus légitimes puissent être trouvées pour le bonheur de ces braves populations de la pêche qui vivent à Caen.